borom wax na ko tuuba li abdin muridin saadiqin lahu moo bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyatin tuuba dafa wax lu leer tuuba euh, texe ñeen na kuy jaamu yàlla ñeen ku wuti yàlla ñeen ku dëggu ñeen na ku sopp ñeen kuy joxe àddiya voilà kon ñooñu ñooñu lañ fa soxla waaye waxuñ dégradé ñuy dagg sa bopp beeg di dagg sa yëpp yëpp yaa ko def ba nga xamee ne parce que Touba teel nañoo averti nit ñi teel nañoo wax ne bëgguñu fi lii yow ngay jaay dëgër bopp di fa yóbbu lool ñu ne kuppet waaw kuppet lañ koy def jeex na waaw nga ah ñàkk sa sa sa karaw. <laughs> moom moo. moom foofu la xamee waa ji dama ne titre fu dul titre foncier. Eh. ñoo yem kuy woote màggal daal te màggal gi du lu leer. mu wax ni eh, kuy ñëw melal nii nga ñëw meloo noonu loo gis yow yaa dëkku jàmbur la rawatina di titre foncier koo ku fay dem danga war a mel ni borom dëkk bu waaye yiwal kay baax na yiwal di kay yiwal di moo bon waaye yiwal baax na hmm? ki la ne yiwal sa jàmm la bëgg waaw parce que boo yiwee ku nga mën a dajal man ngaa seeti yonent bi man ngaa seeti sëñ Bamba man ngaa seeti Alaaji Maalik man ngaa seeti ku man ngaa toog moom waaye boo yiwadee manoo seeti kenn kenn boo boo boo kii tey kii li mu sol nii ah <laughs> xam nga ne nañ wax li mu sol rek li mu sol nii tey bu daje woon ak euh, euh, sëñ Saliou buñ noonu sëñ Saliou dafay ñëw wala sëñ Sidi Maxtaar wala sëñ euh, Muntaxa bu ko bu ko déggee day làqatu parce que lii nanguwul mu gis ko waaw day day làqatu waaye bu fekkee nag dafa sol lu yiw dana uy anamu mu ngay daw mu ngay buuxante pour gis ko waaw ah, lu yiw mel noonu waaye lu yiwa di nag moom ñenn rek ngay nangu gis ko xanaa ah, ñi ñi yiwa ndax yow wala ñàkk pexe ndax rek waaw ñi yiwa di ndax yow wala ñu ñàkk pexe ndax yow wala ñi lay seetaan xam ne jamono noonu la demee voilà moo tax Touba moom kuy dem rek yiwal soo ko deful ah, soo ko deful dëbbukaay yaa nga fa de dëbbukaay yaa nga fa waaw ñoom bu ndigal ñëwee jeex na xanaa bu ndigal ñëwul waaye bu ndigal ñëwee jeex gisatuñ kenn boroom ndigal li rek ndigal jëfe lañu wax ndigal jëfe ndigal jëfe waaye yow itam nag ci dëkku jàmbur kay defal liñ bëgg rek soo ko mënul nga toog moo gën waaye naan man bu ma demee bu ma ku ma fay laa ilaaha bu la bàyyi faal yi ñu dóoree seen kuur yi ba bàyyi la da nga xam ni yàlla yàlla yàlla jul la santaan ah, ah waaw waaw waaw. diine nanguwul lu tax nga musóoru. de de loo def ci bopp bi kay la xanaa ñoom dañuy seet ñi ñëw ni ñu mel yow nga ñëw ak sa bopp dañuy dañuy dañuy tas musóor gi bu fekkee ni waaye bañ nangu boo demee hôpital boo demee hôpital tey kooku feebar bu ñëwee duñ tas bopp bi am dañ koy faj ci kaw musóor gi duñ ko faj ci kaw liñ fii bañ ci Touba dañuy seet ndax loolu nga defoo la defoo ko soo ko defee ñu la dindil soo ko deful ñu la baal ma merci sa musóor ah boo demee tey indi sa musóor euh, docteur bi sañ na koo dindi du ci am bàkkaar du ci am dara parce que da ko dindi faj la yéen yow yow mii wax lii nag yow mii yaa nar def loolu nag waaw yow mii yaa nar def loolu waaw waaye boo ko defee danga nga daje borom kuur rek kuur moom ah, euh, Tuubaa moom dafa leer dañoo wax lu leer ku fi ñëw ñëw la yiw loolu doy na. surtout que sax bari ki démb euh, sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg te wér def na benn déclaration di wax ci li nga xamante ni moom la ñu bëgg tëralee li nga xam moom mooy màggal gi woo na ñëpp woo na julli yëpp ndax du ma wax muriti rek du ma wax tijaani woo na ñëpp ne nañu ñëw ci dal nañu ñëw ci Serigne Touba ni mu ko bëggee bu ñu ñëwee nañu jublu ci li nga xamante ni moom mooy xasida yi ak xuraan lépp loo xamante ni moom noonu la ko bëggee woon rek incha allah ñu nekkee ci loolu. waaye loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg di moom mooy sëriñ Touba moo fa nekk tey moo fay sëñ Tuubaa lu fa ñaaw moom lañuy waxal lu fa rafet moom la ñuy waxal kullukum raain wa kullukum yi an raiyatihi kenn ku nekk ci yéen sàmm sàmm bu nekk danañ ko laaj la muy sàmm fu mu jëg moom gannaaw moo yor Tuubaa mooy sàmm Tuubaa mooy sàmm taalibe yi da leen di wax li yàlla bëgg pour bu ëllëgee moom a wàccoo moom wàccoog ñoom li yàlla bëgg daal comportement bu rafet yiw la sëriñ Touba bëggoon ñu mel ko ñu mel ko su ko defee sëñ Touba kontaan waaye yow ni sëñ tubaa nga yaakaar nga mel melokaan woo xam ne ku yaakaar Iran sax du ko mel waxuma la ak sëñ Touba Iran rek boo ko yaakaaree xanaa waroo mel noonu waxuma la ak Touba nga mel melokaan boo xam ne comme Iran di dof doflu bu ko defee ne xam nga faj moom ñaar la daa am ñoo xam dañuy pikiir di joxe doom ak bomb bu wóom ñii ne kuur lañ yore li sëñ li sëñ mun wax leer na niñ bëgg Tuubaa leer na lépp leer na ko ñëpp jëfandikoo mu jeex su ko ñëpp jëfandikoowul dañ fekk ñeneen ñu jëfanteek ñoom boobaa nag du ci ñoom voilà nañ def loolu rek. waaw kon mu mel ne li ñu waroon wax ci li nga xamante ni moom mooy safar bi bu fekkee sama yeneen gars yi amaatu leen ci benn question rek ñu dugg ci li nga xamante ni moom mooy.